الحمد لله ولي المؤمنين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الوصايا الوصية بتقوى الله قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala man mi waayoo way gëm yi moom borom bi subhanahu wa taala borom yërmeelu yaatu bi moom subhanahu wa taala borom teraanga yi ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu kudul moom te waruñoo koo bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi gën képp ku yàlla sàkk te gën koo tedd yàlla yónne ko muy yërmande xeet wi yàlla na yàlla jullu te salmal ci moom moom ak i soxaabaam ak képp ku topp ci njubam booba keroog bis penc di taxaw mbokk yi dénkaane yi di di gën ñu war koo dénk ab jullit mooy dénkaane ragal yàlla ragal yàlla li muy tekki mooy di def li yàlla digle di bàyyi li yàlla tere loolu dénkaane gënu koo féete kaw yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di wax ni fattaqullah na ngeen ma ragal mastataatum seen kem kattan wasmau wa atiu maanaam lépp lu ngeen dégg ci lu ñu wax ni lii lu yàlla digle la bu leen ci kenn jiitu def da leen ci seen kem kattan lu ngeen dégg nit ni lii yàlla da koy tere na ngeen ko bàyyi seen kem kattan wa anfiqu xayran li anfusikum te ngeen di joxe joxe moo xam sa doole ngay joxe ndax moom nga am wala sa alal ngay joxe ndax moom nga am wala sa xam-xam ngay joxe ndax moom nga am mbokk yi dund nañu li ñu doon wax vacances yu année scolaire ndongo yi bëroon ci doon ci noppaliku lu tolloog ñetti weer ñu dëgmal li ñuy wax année scolaire ñetti weer yoo xamante ne nag mbokk yi yu gaaw la woon lool yu néewoon nit lool ci fani àdduna waaye muy ay jamono yu yàgg ca fa ñu jëm yowmal qiyaam ca xisaab ba moo xam ka ca góorgóorlu woon def ca kem kàttan ci jaamu yàlla kooku de moom mooy kay texe yàlla nañ ci yàlla boole waaye képp ku ci sàgganoo nit keroog taxawaay bi dana yàgg ci yow lool yàlla nañ yàlla musal ci yooyu taxawaay kon lii ñu jëm muy année scolaire nit faw mu am ab yóbbal mun ci jox kii di wayjur bi ak kii di jàngalekat bi ak kii di ndongo yi ku ci nekk am na yóbbal ginnaaw bi ñu xam leen ni jàngale moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko njëkk a def keroog bi mu sàkkee suñu maam aadama war koo dénk kaw suuf mook njabootam yàlla da ko jàngal wa allama aadama al asmaa kullaha lépp lu doomu aadama war a jariñoo ci kaw suuf yàlla da ko jàngal suñu maam aadama lu fi nekk fii ci kaw suuf am na tur te lu ñëw bees di nga am tur ndax bu bu am tur amul woon da nga naan jox ma lee jox ma lee koo ci woo sax ni ko ee lu mu lay wax mooy am naa tur kon wa allama aadama asmaa kullaha ba tax na jàngale kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu bari ci ay ngëneel wante li ñuy njëkk dénk kii di way jur bi ci doomam bi mu war a dugal école te ñetti xeetu école am ci suñu Sénégal école bii ñuy wax école française ak école bii ñuy wax franco arabe ak école bii ñuy wax daara yii am kumba ay am ndey nag yii am yii di kumba amul ndey waaye yow mi nga xamante ne yaa yor sa doom war koo jébbal ci benn ci bërëb yu nga xamante ne xaw xale bi dafa war a jàng ji ana lan mooy say responsabilité ci njaboot gi njëkk borom bi subhanahu wa taala moo ñu njëkk a dénk mu ni yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara wa quuduha annaasu walxijaara ay yéen ñi gëm ku anfusakum mooy na ngeen fegal seen bopp sawara du yéen dong de wa ahlikum ak seen njaboot safara si nga xamante ne nag la koy xam bu ëllëg mooy doomu aadama yi ak xeer kon yàlla wax na la responsabilité bi lay xaar yow waajur bi wax la it responsabilité bi lay xaar ci kaw njaboot bi léegi nag mu des ka nga war a jox sa njaboot ndax ku ko war a jàngal xam-xamu àdduna kese la wala ki koy war a jàngal xam-xamu àdduna xamaaleel ko boroomam ila axiri saydna aliyun radiallahu anhu dafa wax ni wax ji borom bi subhanahu wa taala wax ni qu anfusakum wa ahlikum li muy tekki mooy ay allimuhum wa addibuhum jàngal leen seen njaboot yi te nga yar leen jàngal leen leen te ngeen yar leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag dafa wax ni ki nga xamante ne mooy jàngalekat bi njëkk ak di yarkat bi njëkk ci ndongali ci njaboot gi moom mooy ay waajuram moom la wax ci xadis mu ni ma min mawludin illa yuladu ala alfitra fa abuwaahu yuhawwidaanihi aw yunassuraanihi aw yumajjusaanihi mu ni amul benn doomu aadama buy gane ci kaw suuf lu dul ci fitra nga gane kaw suuf fitra mooy njub yàlla ci njub la lay wàccee ci kaw suuf moo tax liir mooy leer leer gu jóge si borom subhanahu wa taala ku taxul benn bàkkaar léegi nag sa responsabilité ci leer googu yàlla mu ne laa tabdila li xalqillah lii ma la dénk nag fexeel ba bu ci soppi leen buy dellu si waat ci man na ànd ak boobu pureté kon responsabilité la mu ne nag leer googu ñu lay jox nee na ay waajuram ñoo ñu ko gën a jege ñoo koy def majuus wala ñu def ko yahut wala ñu def ko nasaraan lu ne ci moom la bëgg wax ne ñoo ko ci def kon responsabilité la ëllëg yàlla dina la wax ndax nga yore woon sa njaboot googu ñaareeri ndénkaane bi ñuy dénk ki nga xamante ne mooy ki ñu war a jël xale bi nag teg ko ci ay loxoom ñu koy wax jàngalekat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ki nga xamante ne jàngalekat la rawatina jàngalekatu diine koo xamante ne dafay jàngal xale bi di ko xamal boroomam subhanahu wa taala di ko xamal naka la war a jaamoo yàlla mu ni moom de li mu am ci ay yiw mooy allahu subhanahu wa taala ci boppam wa malaikatihi wa ahla alsamawati wal aradin xatta namlata fi xujriha wa xatta alxuut la yusalluuna ala muallimi nnaasi alxayr mu ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak i malaakaam ak lépp lu nekk ci kaw asamaan ak kaw suuf ba ci xorondoom mi nekk ci biir suuf ba ci géej jën wa fa ne dañuy ñaanal ki nga xamante ne mooy jàngalekatu diine di xamle diine alxayru yiw mbokk loolu dara gën koo rëy ci kaw suuf moo tax ñu ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu xayri science bi gën ci science yi bu amul benn werante mooy alquranul karim moo tax yoon saa salaam ni ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moo jàng alquran ba pare di ko jàngale waate yow mi ñuy dénk xale bi nag na nga xam sa responsabilité ci xale bi ni kiñ la jox day roy jàngale mbokk yi roy la xale bi boo koy jàngal bind bu ñëwee fekk nga bind bind bi ba pare mën naa am jaaxle ci fan la war a tijjee bind bi ak fan la ko war a tëjee kon mu fekk nga naan ngay bind bay daaneel dina xam fan la war a tijjee bind mi ak fan la ko war a tëjee kon bind roy la la nga ko bindalit boo koy jàngal da nga koy wax mu dégg kon ba tey roy la gis nga noonu mu lay royee ci bind ak ci wax noonu la lay royee ba ci sa melokaan ni ngay soloo xale bi bu la xasee ba fan fan na la bay fan na ngay waxee na ngay bindee na ngay soloo ba na ngay doxee kon yow responsabilité bu rëy lañ teg sa kaw mooy dañ laa dénk doomu aadama bi yàlla dénk kaw suuf ngir nga tabax ko mbokk yi ku ñu tabaxloo ku ñu defarloo brique douze nga jël moolu quinze doo am brique douze mukk ki ñu jox brique ni la brique plein laa bëgg nga jël brique quinze creux doo am plein kon yow dañ laa jox ni la kii da nga ko war a tabax ngir mu doon koo xam ne day jariñ boppam jariñ ay mbokkam jariñ umma bi kon xamal responsabilité bi nekk sa kaw moo tax ki nga xamante ne mooy jàngalekat bu mag bi di yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nettali ci moom nii kii di Muawiya mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa giñ laataa muy wax lii moom Muawiya mu ni nekk nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay at ay at te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musu ko gëdd musu ko gëdd nga dégg Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mu ni saxittu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ashara sinin nekk nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at fa ma qaala lii uffin te yoon saa salaam mos wax uff xale yi nga yor am na ci ñoo xamante ni boromi kersa yi kese lañ kooku bis boo ko gëddee doon ko jàngal am fitam dem na am koo xamante ni ab ragal la ragal kooku bu gisee nga yor jumtukaay bi ngay dumaa noppee nga ko jàngal noppee nga ko jàngal ndax yóbbu nga am fitam yóbbu nga am xelam ki nga xamante ne dafa tëj te kooku foog nga jëflante ak moom sax ay charte nga jëflante ak moom moo tax yoon borom bi subhanahu wa taala bi muy wax arrahman allama alquran gis nga même ci jàngale ci science bi gën a rëy muy alquranul karim dafa jëf dafa dafa jëfandikoo baatu arrahman maanaam foog nga am yërmande ci ñi ngay jiite ci xale yi soog leen mën a jox li nga xamante ni moom mooy xam-xam mbokk yi ki nga ëmbalul coxeel muy xale muy mag kooku mënoo koo wax lu mën a dégg nit ki da nga koy yéene li nga yéene sa bopp muy ak réussite ak texe al fawzul azim loo wax mu dégg ko aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin kullu dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim allahumma salli ala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteelu dénkaane bi ñu ngi koy dénk ki nga xamante ne mooy ndongali kii sàkku xam-xam di ko xamal ni jumtukaay bi bi jig ab ndongo ngir mu mën a am réussite am ci la muy jàng la ci njëkk mooy nangu nangu nangu ci kii lay jàngal lam lay digal ci lépp loo xam te lu lay jëriñ la nga nangu ko nangu say wéyjur te lañ lay digal ci njàng ma loolu bokk na ci lay dimbali ngir nga am réussite ci li ngay defe ji muy am jàngu wolof day wax ni nangu jël na cëru ku bañ ki la gën a nangu kooku mooy ki la gën a jëriñu ci am njàng beneen dénkaane bi mooy kiy jàng ba tey lañ koy dénk mooy donte ab gone la ay waajuram def ci moom lañ jot def ci moom ci yaru diine ñu teg ko say loxo gone googu bu dee am na tuuti ragal yàlla na nga ko fexe jëmba ma nga suuxatal loolu ci moom bu dee ku ko amul woon na nga ko def ci moom ndax ragal yàlla gi mooy doon ab kiis ci moom léeg-léeg nga ñëw ku gis gis ku ñëw ni la bindalal ma sama doom ji kiis ndax xel mi tijjeeku kiis bi gën a gaaw yàlla suñu bam naa ittaqullah wa yuallimukumullah ragal ma rek man yàlla man may tijji sam xel ki nga xamante ni moom dafay jàng di nuur ci loo xamante ni ay ñaawteef la ki ñëwoon ci borom xam-xam ni ko man de dama am jafe-jafe ci su may jàng lu may jàng du dugg maanaam dama tële am xam-xam shakartu ila wakiin su a xifdi la ko wakii digal mooy fa arshadani ila tarkil maasi dafa ma wax ni ma bàyyil mooy ndax da ngay mooy ah léeg-léeg damay xool yoo xamante ni kii la wala may diglu yoo xamante ni mën ko gàddaay ko te nga xam ni al ilmu xam-xam nuurun ak leer la wa nuur allahi la yuta li aasimin mu ni nag leeru yàlla yàlla doo ko sotti ci ndax lu tilim loolu mooy dénkaane bi mu ko jox yow mii roy muy sa dénkaane ci roy bi nga war war a roy ki lay jàngal ginnaaw bi ñu xamle woon ni jàngalekat bi royukaay la yow mii roy ci moom royal ci moom lu baax na nga mel ni wala mu mel ni ci yow garabu sump sump de am na njariñ siddee mi am na njariñ nit da koo soxla waaye boo koy jël na ngay moytandikoo dégg ya ba jël sump ba wala nga jël si démb jëfandikoo ko bàyyi ko ki déggam borom xam-xam bi ne sa kanam te mënoo ko éviter moo lay jàngal science bi nga xamante ne moom ngoor moo la koy jàngal nee na na nga fexe jël ca moom lu baax te bàyyi ko ki déggam ndaxte mënul ñàkk kon mbokk yi année scolaire bii ñu jëm ñii di ndongo yi yal na yàlla tijji seenum xel ñii di jàngalekat yi yal na yàlla yombal leen yombalal leen wattu leen ndax mission bu rëy lañ yor ci kaw suuf mooy tabax doomu aadama yal na yàlla yombalal leen loolu waajur it ñu gën a conscient ci responsabilité bi yàlla su subhanahu wa taala gàll ci seen kaw ci nga njaboot gi ñu war leen a jàngal xamal leen ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله